Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Top Sport, le résumé de l'actualité sportive de la semaine. Voici les titres. Les champions d'Afrique ont quitté Dakar ce matin pour Cotonou où ils devaient effectuer leur première séance d'entraînement à partir de 10 heures. Pétition de football au Sénégal. Suspension levée, les Ligue 1 et 2 ou la 22e et 23e journée ce week-end. Source participation aux Jeux Olympiques mondiaux Berlin 2023, les Lions du Sénégal en Allemagne depuis euh, lundi. Afro-Basket 2023, préparation de l'équipe nationale féminine de basketball. Stadium Maris Ndiaye. dal leen ak jàmm ci top sport ñu tàmbali ko ak coupe d'Afrique des nations bi ñu war a amal foofu noonu ca Côte d'Ivoire gaynde yu Sénégal yi nag ginnaaw juróom-ñaari fan eh, ci tàggat fii nii ci eh, réew mi diggante stade bu annexe bu Diamniadio ak stade bu Abdoulaye Wade ngir waajal lii di seen jongante ak waa Bénin foofu noonu ca Cotonou eh, samedi 17 juin bu 19 jotee match éliminatoire coupe d'Afrique des nations bi ñu war amal euh, fofu noonu ca Côte d'Ivoire benen match bi wara dox ak digantem ak wa Brésil bu Vinicius Junior fofu non Portugal Lisbonne bu ñaar fukki fan eh, ci wéru juin ay joté eh, fofu non eh, lañ koy footballé ñu waron dem niki dembu ci alxames bi mais finalement tay la ñu mujj dem ci ajuma ji pour wutali fofu non ca capital bu Bénin di Cotonou ngir daldi jano ak wa lii di béninois yi samedi bu 19 19h jotee ci melu euh, becc qualification de la coupe d'Afrique des nations 2024 la ñuy euh, dem fofu non ci Portugal Lisbonne euh, pour dal di jonganté match xarito bobulé ak équipe bi di Brésil bu Vinicius Junior bu ñaar fukki fan ci wéru juin jotee ci 19h batay fini ci réew mi Ligue sénégalaise mi nga xamante ne ñu ngi jouer 22e journée Jambar FC mom dina dalal équipe bi di AS douane Dakar Sacré-Cœur mom dina laale ak équipe bi di Sonacos aspikin mom euh, euh, dina dalal équipe bi di de Dakar Linger de Saint-Louis mom dina Lale ak équipe bi di Stade Dombourg Génération Foot mom dina dalal équipe bi di Guédiawaye FC euh, Teungueth FC mom dina dem ci terrain bu Casa Sport ki di US Gorée mom dina Lale ak équipe bi di Seneps Excellence ci classement bi batay Génération Foot mo nek ci bopp bi am lii di 41 points ku ci top moy Bar FC am 38 points Guédiawaye euh, troisième am 35 euh, points ci soufu classement bi ñu fekk fa ki di AS Douane mu am 19 points Linguère bu Saint-Louis mo ci top am 17 points ak équipe bi di Seneps Excellence 10 points Bataille, nous ñu descendi fi ci Ligue 2 bu Sénégal mi nga xamantene mom tamit mu ngi football Ligue 23e bëccëgam Thiès FC mom dina lalé ak équipe bi di Keur Madior HLM de Dakar mom dina dalal équipe bi di US Wakam Walidan. mom dina laale ak équipe bii di Port Autonome euh, Ndiambour moom dina dem ci terrain jamono bu Fatick Oslo FA moom dina dalal équipe bii di ba Diop Dakar Université Club moom dina laale ak équipe bii di Amitié FC Azel bu Rufisque moom dina euh, dem ci terrain bu Mbour Petite Côte ci classement bi ba tey Azel bu Rufisque moo nekk ci bopp bi am 39 points ku ci topp mooy Oslo FA moom tamit mu am 36 points ak kii di US Ouakam 36 points ci suufu classement bi ñu fekk qui de de major en mu am 23 points Dakar Université Club 23 points ak Port Autonome 18 points ngir participer ci 16e édition boobule des olympiques mondiaux bu ñu amal foofu Berlin équipe bu Sénégal mom déplacé na délégation bu 54 membres jóge nañ Fini ci Dakar dimanche 11 juin euh, ci 21h Dal di yegsi foofule ci Allemagne ci Altiné, 12 juin bu 9h jotee SK escale bu ñetti waxtu fofu non Bruxelles euh, ci Belgique compagnie bu Bruxelles Airlines mo leen fa mujj euh, yóbbu euh, ngir daldi visiter li di installation yi ak xol di condition hébergement yi di leen fàttali batay tey athlète ak ñent ñoy daldi défendre li di couleur yu Sénégal yi ñu jongante ci juróom discipline athlétisme natation boxe pétanque équitation li di basketball ak lii di euh, football euh, unifié afro basket ci wàllu jigéen yi Sénégal nag mu ngi koy waajal depuis quelques fan fii nii ci stade bu Marius Ndiaye ci Kigali lañ koy amal ci njeekitalu weeru juillet boobaak léegi ñu ngi fii nii euh, ci Ndakaaru di ko waajal ci JOS ñi nga xamante ne ñoom lañu tàbbu bokk na ci doomu américaine bile bu jël nationalité sportive sénégalaise di Siara Janay Tilar ki nga xamante ne Coupe d'Afrique basket ak équipe bi di Égypte donc équipe bu Sénégal mën nañ sukkandiku ci boobule joueurs ngir dem euh, fu sori ci compétition boobule ginnaaw bi mu évaluer ci ay réew yu bari bari Sénégal dal dina euh, compter ci boobule joueurs pour daal di sori ci compétition yoyulé Fatma Samoura di doomu sénégalais nek ci secrétaire général bu FIFA ginnaw juróom ñaari at mu ñuy xamal né dina bàyyi dina tekki di nombal tankam bu at bi jeexee ñu woyali fofu non ci Europe Ligue des Nations ki di Croatie mom dafa daal di qualifié eh, ci final boobule ginnaw bi mu daanee ki di Pays-Bas ci prolongation yoyu de ci ñetti bal ak ñaar barki démb niki démb tamit équipe bi di Espagne momit dafa daan équipe bi di Italie ci ñaari bal eh, ci ben batahna tax équipe bii di Croatie ak Espagne dinañ laalé ci final boobule bu 20h45 jotee dimanche lay doon wa akhlu amateuru football ñu ngi koy xaarandi ak doole ba tey ci euro 2024 bi la ñuy desandi troisième journée ci groupe A bi Grèce moom dina laale ak équipe bi di Irlande Chypre moom dina laale ak équipe bi di Géorgie ci groupe C bi kii di Macédoine du Nord moom dina dalal équipe bi di Ukraine Malte moom dina laale ak équipe bi di euh, Angleterre Lettonie moom dina dalal équipe bi di Turquie Pays de Galles moom dina laale ak équipe bi di Andorre moom dina laale ak équipe bi di Suisse Kosovo moom dina dalal équipe bi di Roumanie Biélorussie moom dina laale ak équipe bi di Israël Islande moom dina dalal équipe bi di Slovaquie Portugal bu Cristiano Ronaldo moom dina dalal équipe bi di euh, Bosnie ba tey ci match amical kii di Lionel André Messi di doomu Argentin bi de bu bi nga xamante ne doxoon na diggante moom ak Australie mu daal di gagné 2 bi à 0 daal dina dugal bi boo xamante bu gën gaaw ci carrière au euh, football am final bu Ligue des Nations bu CONCACAF 2023 dévoilé nañ ko équipe bii di Canada moom dina laale ak équipe bii di euh, États-Unis ñu addu ci mercato européen boobule ginnaaw bu championnat yi jeexee ngir gën a am taxawaay ci saison prochaine bi le club yu bëri ñu ngi wutali di daal di jëndi ay joueurs pour gën a renforcer lii di seen euh, collectif ca kaw loolu ba tey ñu ngi ñuy xamal saison 2023 2024 pour Premier League foofu noonu Angleterre dina samedi 12 eh, août 2023 Dembou, ancien joueur pour Dortmund Domo Angleterre Pile du sud Bellingham Mom eh, dal dinañ ko officialiser eh, Real de Madrid dina façon Lidi numéro 5 Rudy Garcia Momit officialisé nañ ko comme entraîneur pour Napoli champion en titre foofu Italie James Milner Nekon Fofunono. Liverpool Liverpool le na fa wutali falé Brighton ba tey foofu Angleterre domou sénégalais bile di Michael Faye eh, signé na FC Barcelone entraîneur bi sak di eh, Xavi Hernandez di domou espagnol bile soxna la ko ci eh, pré-saison dal di pour xool tolluwaayu jour bobule di Michael Faye. C'est ce qui met fin à ce top sport. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de Top Sport. D'ici là, rester au top de l'information qui se poursuit au www.maderpost.com et sur Madère Web. Excellente suite des programmes et bon week-end à tous et bon sens à nous. Lyon.